Lamine fi ñuy bambaali <laughs> fi ñuy jeexale mu nekk tiiti sorte bi mu def ci semaine bi mhm. après grade d'officier bi l'ordre mhm. national def titi réagir mhm. d'accord muy euh, ay grade yoo xamante ne euh, wala boog euh, moom le président sortant Macky bi mu gradé rek ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci suñu ay woykat ku ci mel ni voilà ñëpp xamoon nañ ni Coumba Gawlo ak ki nga xam ne moom mooy Viviane mm-hmm. ak ki nga xam ne rek moom moo di Youssou Ndour vraiment mm-hmm. ont té élevés au au, au grade d'officier de l'ordre national di mm-hmm. di Lion loolu di ay mbir yoo xamante ne bi mu amee sénégalais yi bëree bëri aussi génn nañu voilà di wax ni que rafetlu nañ ko bu baax a baax mais mhm. ki nga xam ne moom mooy Titi waroon nañ koo boole ci ñi nga xam ne rek ñoom la ñu euh, ñoom la ñu gradé parce que tout simplement moom euh, artiste la boo xamante ne li mu def fii ci Sénégal moom également mérité woon na quand moom Macky Sall gis nga ñoom ñu ngi nii mhm. artistes yi nga xam ne ñoom la ñu ñoom la ñu gradé woon donc voilà euh, mi ngi noonu donc moom euh, Titi ñu jàpp ni que mënoon na cee bokk. donc mhm. loole <coughs> d'habitude ay waxu fans rek lay doon. ñu ah. baree bari doon jàpp ni que moom. ci li mu def ci musique ak liggéey bu am solo bi nga xam ne defoon na donc mérité woon na quand même Macky Sall daal di ko woo. Mhm. balaa moo dem mu boole ko ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla. bokkoon na ci loolee nag euh, dafa amoon benn plateau bu spécial Korité bi Padros doon def foofee ci mm. ITV. Mhm. ci la ko ñëwee ci laaj boobee di ko xalaat la mooy impression par rapport ak loolu wala boog lan la xalaat parce que mm. sénégalais ñu bëree bëri jàpp na ni que waroon a bokk ci ñi nga xam ne Macky Sall daal leen jukkal moom titi mm. euh, moom tamit lii la ci tontu ñu daal di ko déglu rek bu ko defee ñu ñëwaat. bii toog waaw ci loolu. ñu bëri nee nañu bi Macky Sall di woote di takkal euh, ñenn ñi. Euh, gratte. Euh, li nga xam ne moom moo di euh, ordre national du lion pourquoi woowul ku mel ni Titi ak li mu def ci musique bi. waaw mais loolu man yëguma ko woon sax. waaye Padros gratuit yàlla wala médaille yàlla ma gënal. ndeysaan. te ba ma juddoo ba tey déggoo man bi may wax nee naa man musique li ma ci bëggoon suñu borom may na ma ko. xëccoo ma. voilà donc mi ngi noonu moom moom Titi mi ngi xam ne ni que rek moom. Euh, voilà loolu am na solo bu baax a baax mais gradu yàlla moom moo ko moom moo ko gënal. Mm. beneen bi mu ci teg mooy que ni moom ñi nga xam ne ñoom la ñu ñoom la ñu jox mbir bi. Mm. Euh, donc euh, voilà yàlla na leen jig bu baax a baax parce que ay ndaanaan lañ yoo xamante ne def ñoom également ci musique sénégalaise loo xamante ne. Mm-hmm. mérité nañu quand même ñu woo leen donc moom. li nga xam ne moom la ñu jox ay nawlem kontaan na ci bu baax a baax. mais mm-hmm. mu yàlla moom moo ko gënal beneen bi mu ci teg aussi mooy que ni. Euh, moom suñ borom defal na ko lépp. Mhm. defal na ko lépp dans la mesure où tey heure bu yeewoo mi ngi gis yaayam. donc mhm. li mu am mu ngi koy bokk ak mu ngi koy ñaanal. Mhm. donc lépp lu ñëw lu ne rek euh, voilà euh, ay mbiru yàlla la. donc ñi nga xam ne ñoom la suñ borom jox loolu donc moom ñaanal na leen bu bu baax a baax donc yàlla na leen jég loolee la wax ci émission boobee nga xam ne moom ak Padros ñoom ñoo ko def donc muy mbir boo xamante ne ba ci ñun ñii sax. yéene woon nañu ko parce que Titi vraiment c' est une euh, c' est une chanteuse boo xam ne vraiment ci yoon bi mu jaar. mu doon mm. koo xamante ne modèle la. Uh-huh. référence la te aussi koo xam ne def nga pil de vingt ans de carrière. vraiment mm. nga def fi lu ne. Euh, man je me rappelle Titi bu ci artiste yu jigéen yi fi ne moom mooy artiste bu njëkk boo xamante ne moom moo njëkk a tegle million de vues yi ci kilibu gën di gën gi dëkk bi nga xam ne mm-hmm. defoon na ko fi tey la neex rek ba ñuy gis ni que yenn artistes yi mm-hmm. kenn ku ci ne yaa ngi am ay millions de vues mais moom mm-hmm. personnellement moom moo fi jëkke xewal million de vues yi ci gën gi dëkk balaa beneen ak beneen artiste beneen artiste di ko def loolee du du du du du samay wax rek mais bu ñu delluwaatee ci ginnaaw ñu xool dinañ xam ne que lii may wax Euh, lu lu lu am la donc waroon na cee boo xamee moom aussi ni mu tontoo aussi rafet na bu bu bu baax a baax mhm. parce que tey ñu jël say ay nawle ñu ñu ñu ñu daal leen sagal mhm. yow bokkoo ci te moom Titi euh, il faut il faut il faut il faut rappeler que moom euh, elle a été voilà meilleure artiste féminine mhm. de l'Afrique de l'Ouest en 2019 ginnaaw gi bi mu defee Euh, album euh, album namante mhm. voilà bi mu ci jógee aussi am na ay raay yu bëree bëri yoo na jël na ko mhm. kon je pense que tey yeneen yi nga xam ne mu ngi koy jël rek donc bu gënee góorgóorlu yeneen dina ñëwaat incha allah donc di ko ñaanal bu baax a baax di ko wax ne namm nañu album bu bees yu mu ñëwaat incha allah incha allah ñu mhm. koy ñaan une très bonne carrière tit